actualité bi gars dañuy waxtaane ki nga xamné nak moy l'hommage bi nga xamné donc les supporters du Paris Saint-Germain rendre nañ ko ki nga xamné moy donc qui di Idrissa Gana Gueye ak également qui di Angel Di Maria ak Mbappé qui a officialisé aujourd'hui sa signature ki nga xamné également moy Cheikh Kouyaté bi waaj prolonger du côté de Crystal Palace yooyu yëpp lañ ci waxtaane gars ak aussi Marseille mi dem Ligue des Champions par rapport ak VAR bi gars ni ko waxe chaque fois buñ duggalé vidéo xol leen ci kaw commentaire bi njëkk nañ fa def lien TikTok beeg Instagram bi ngeen dem abonné wu gars en masse ngir ñu mëna a benen phase bi nga xamné mom lañuy def et également Ligue des Champions féminines les Lyonnaises Nyom ñoo gagné le FC Barcelone d'Alexia Putellas 3 buts à 1 Lyon momo 3 buts à 0 Putellas m'a réduire le score mais finalement les Lyonnais donc Lyonnaises plutôt qui ont remporté leur huitième titre européen ci li nga moy Ligue des champions donc Lyonnais Lyonnais actuellement donc gars ñom ñoom ñoo ci kaw kaw avec également Wendy Renard également Ada Hegerberg nga est momit la première joueuse ligue a nga gagné le Ballon d'Or féminin mais aussi félicitations à ORB Leipzig nga a mo gagné donc Coupe d'Allemagne ñom ñi gagné tay yi hein par tir au but, mais aussi félicitations au manager de RB Leipzig, Mouy Babacar Ndiaye, l'enfant de Thiès, l'enfant du Sénégal, mi nga aujourd'hui fier hein, fierté pour l'équipe nationale du Sénégal fierté tel pour Sénégal yëpp hein, genre nit ñi on lui dit félicitations parce qu'il a abattu un travail exceptionnel toujours entre deux avions mais di def chapeau bas chapeau bas pour ki nga Babacar Ndiaye du côté de l'Allemagne la ñuy des également gars actuellement a pas critiqué critiquer par rapport la gestion mais ki nga également aujourd'hui l'un des patrons dit ki xam Oliver Kahn néna mom daf il adore travailler avec ki nga xam mooy Célia Belgique dinañ toog nag saison bi xool la la baxul ñu daal di koy defar ngir ñi nga xam moy Bayern nekkaat ci ay raay yu gën a fi ñu nekkon ren pendant ce temps également ki nga xam moy Kevin De Bruyne mom la jox meilleur joueur de la saison du côté de la Premier League bravo Kevin heureusement que yow ya ko jël mais aussi ki nga xam ne également mom may donc aujourd'hui aussi hein ki nga xamné ne kenn doon ko présenter la pépite anglaise hein ngeen gis ko jamono ji muy Phil Foden mom lañ jox également meilleur jeune joueur de la Premier League donc Manchester City dal gay mom mo gagné gum lépp en attendant demain contre également Liverpool à distance bien sûr di ñaan yalla Liverpool gagner li nga xam moy Premier League bi ki nga xamné nak mom moy Jordan Klopp li wax leer na mu ñun on n'a pas peur on a peur de rien on n'a pas peur de ben équipe fi ragul ben équipe muy tay di déwoon ak saison yi di ñëw yépp Liverpool tant que mi ngi jouer duñu mësa ragal kenn et dañuy gëm né lepp lañu wara mëna dal di jël aussi mais également du côté de Crystal Palace ki ngeen gis ni ah donc di Jordan Ayew mom nak dañ ko prolonger contrat d'une année supplémentaire loolu nak sen manager wax nako né aujourd'hui également ki nga xamné mom moom liggéey pour dal di koy prolonger du keneen aussi ku dul Cheikhou Kouyaté le capitaine emblématique du Sénégal l'homme des deux galons l'ami de King nga xam fidèle en amitié fidèle également en mariage King nga xam patron c'est hein, une vice capitaine et capitaine emblématique du Cherou Kouyaté hein Mr HLM kor ñaari soxna yi qui est en train également de faire de très bonnes choses sur Kouyaté qui est adoré par King nga Patrick Vieira c'est quelqu'un qui est très respecté nit ku euh, respecté mais aussi ku ñu respecté et qui a une hygiène de vie aussi exceptionnelle sur Kouyaté respect King ngeen également hein, donc du Ruben na hein, hein, Castro mom nak, à 40 ans mu nekk euh, à 20 buts fa nga xam ne donc te Liga nek aussi record hein, 40 ans 20 buts 20 buts plutôt nek ko xam aussi Ken du euh, Natable, nga xam ne talent bi mu am ki nga xam ne nag moom de gëmul ne Kylian Mbappé dafa daal di signé Paris Saint-Germain mom nak mooy Javier Tebas mooy président Liga mom fi mu ne nii <laughs> moo gën a sonn sax Florentino quoi ñoom def nañ seen plainte nee na dañuy porter plainte. Paris Saint-Germain ndax li prolonger Mbappé parce que ñom nee ni Paris Saint-Germain def ba jënd Mbappé mi ni xaalis biñ ci def non nekul lu lew quoi ñom loolu wax ne donc nañ dem fi mbax ne doone benn pour dem liggéey lijjanti lool wax mom dafa yaakaaroon ki nga xam moy Mbappé ñëw fofu pour image u Liga bi gëna mëna jar parce que aussi lépp loo gisee comme la communication donc mom fi ni ne nii mooy loolu mais Kylian Mbappé mom dafa ngoy ci li nga xam moy Tour Eiffel bi né mom fofu lay tok du côté du Paris Saint-Germain et jusqu'en 2025 gars donc Kylian Mbappé qui a prolongé de trois années supplémentaires mom mi nga xam tay def nañ présentation bi avec nga moy Nasser El Khalafi. Nasser El Khalafi également bi nga xamne mom Real da koy gagner ci terrain bi mom mo gagné Real ci li nga xam mooy business bi ah ak wa Barcelone wa Espagne mom sonn nañ ci Nasser le fidèle ami du patron ah euh, qatari bi nga xamne mom mom ñi di Paris Saint-Germain Mbappé mom qui a fait sa déclaration Non, je suis très content de continuer l'aventure de rester ici en France à Paris ma ville mom nee Paris, Paris mooy dëkkuwaayam moy lolu mom on sait que yayam elle a beaucoup influencé elle a beaucoup compté ci li nga xam choix Mbappé de même que son père mais surtout Faiza Lamari la maman de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il est devenu le premier joueur français à avoir marqué Gaï sur trois saisons, plus de 25 buts. Momi saison il est à 28 buts et 17 passes décisives, le meilleur buteur et le meilleur joueur de la Ligue 1 française cette année. Et pendant ce temps également, Neymar, qui a marqué Gaï son centième but aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, Première saison 2018-2019, il avait marqué 28. Deuxième but 23. Troisième but 19. Quatrième but 17. Cinquième but 13. Neymar mi nga xam on espère que saison milieu de dina mais également qui nga cette image aura marqué aujourd'hui le Parc des Princes c'est cette image donc de l'hommage rendu à ki Angel Di Maria comme on le dit hein, l'Argentin l'ami de Lionel Messi l'ami également du Paris Saint-Germain qui a ramené ne d'où le but aujourd'hui mon scellé aventure Sept ans de fidélité au Paris Saint-Germain. Donc, il y a Angel Di Maria avec toujours sa célébration avec le cœur pour dire au Paris Saint-Germain que sama xol la len def y a ko image bi nek image émouvante mom soxnam ak domam ñuy joy bi nga xamné dañuy image de wax parcours supporter du Paris Saint-Germain également ultra parisien les gars ils ont été ultra archi méga supporters du Paris Saint-Germain tey parce que également ils ont rendu hommage Qui nga xam ne mooy donc Idrissa Gana Gueye et non Idrissa Gana Gueye Donc ko wéyal wéy boo xam Idrissa Gana Gueye Gueye bu dëgër foo toll di ko ba stade bi di le joueur parisien bi nga également et yaa ngi nii hein. ak affiche yi bind soutien du PSG à Idrissa Gana Gueye soutien à Idrissa Gana Gueye et non Idrissa Gana Gueye hein. il faut ngeen di articuler bu baax Idrissa Gana gay mais le patron du Qatar mom li wax leer mom actuellement néna gay il faut que ñu défarat mbiri du côté du Paris Saint-Germain on va refaire les choses hein remettre les le compteur à zéro défar lu bari li ñuy commencé boy dàq ñenn ñi ki ñu njëkk a également moom mooy Leonardo loolu gay wax ak kan ki nga xamne moy Mauricio Pochettino ñoom ñaar daal dañ ne fi ne dañuy jël Pochettino mom dañ ko duggal ci poche bi expédier ko ki nga xamne moy Leonardo mom également mo xamna né vol bi ñëw lay jël parce que fi ni l'homme nii li ñu bëgg moy jël ki nga xamne moy Luis Campos nek aujourd'hui ki nga xamne il est très proche de la famille de Kylian Mbappé et aussi nekk agent il est très influent directeur sportif parce qu'aujourd'hui il a beaucoup contribué mom également kenen ko xamné moy Enrique bi nga aussi hein, il était président directeur sportif du Paris Saint-Germain après mu fait dafay jógee mi Antero Enrique aussi beaucoup de ci li tax Kylian Mbappé d'aller prolongé mais aussi c'est une option numéro 1 et seule option moy Zinedine Zidane lañu bëgg mu ñëw tok ci banc bi indi Luis Campos defal équipe bu il indi yenen joueur ku ci mel Ousmane Dembélé bi nga selon les informations depuis janvier la accord ak mais aussi ñi ngi woo ñi nga naan ki di Paul Pogba dafa jox accord am Juventus rien n'est signé rien n'est officiel Paul Pogba bi nga xamné aussi Paris Saint-Germain daf ko quoi par gu est-ce que Pogba va venir ou pas on ne sait pas mais en tout cas c'est du 50-50 et du côté de Marseille hein, les Marseillais vont retrouver la Ligue des Champions avec Armando Aubameyang qui ki nga xamné également moy Alassane Gueye ñaari sénégalais une femme, fa am man fa yam li en tout cas Nyom, ils vont jouer l'année prochaine la Ligue des Champions Pape Gueye qui est titulaire aujourd'hui qui a également Moï Babadia, il était dans les tribunes et Bouna aussi était dans les tribunes Bouna Sarr a nga xam donc Marseille Modor, Doru Metel yu dos Strasbourg qui a ramené moi Ekibou, Habib Diallo avec également un doublé de Gerson gis donc Paris Saint-Germain Nek premier Olympique de Marseille avec Monaco également Nyom ñi ngi noona ah. jël nañu Stade Rennais également OGC Nice plus ils ont les 5 premiers ils ont donc ils espèrent à rien ils sont assurés déjà de jouer trophée européen ni ligue des champions ni Europa League et il y a un match qui a gagné également l'AS Monaco de qui a ramené moi donc Jackson ah, Ismaël Jacob plutôt à Kiri donc Crépin Diatra nous de nous d'or de nous plutôt à Lens 2 buts partout Marseille de Strasbourg 4 buts à 0 il y a un résultat qui a ah, gagné Angers Montpellier 2 buts à 0 pour Angers Lorient de Fotembourg 3 Clermont Lyon Moko 2 Reims Nice d'Orco Lille Tembo à Rennes pour Alfred Gomis gars yi les mauvaises nouvelles c'est que mooy ñi nga xam ne mooy Metz Metz c'est sénégalais ñoom dañuy wàcc deuxième division ak également Bordeaux ak Mbaye Ndiakhoum Amadi, Niang mi nga xam aussi moom dañuy wàcc ñoom ñaar ñëpp Ligue 2 euh, française et pendant ce temps également ñii di waa Saint-Étienne ñoom Saint-Étienne hein, ñoom dañuy dem barrage jigéen quiz après Bordeaux mi nga xam ne pourtant moom moo Brest ah 4 buts à 2 mais ñoom ils se sont réveillés tardivement avec Mbaye Niang qui était absent moom mi nga xam ne ak gaaf yi muy def njombe yi muy def ah moo tax moom dañ ko doon woon écarté njiit Mbaye Amadi et pendant ce temps aussi euh, ils ont la chance de jouer les barrages contre Auxerre Auxerre bi nga ce show et j'espère que comme on dit euh, Saint-Étienne dina gagner parce que également Saint-Etienne bon comme que show show ñoo éliminé le bëgg Saint-Etienne même si Auxerre également c'est un grand club le club de Khalidou Fadiga mais gars yi le vous ñu des informations il se fait un plaisir de vous avoir donné les détails compétition est presque terminée mais les informations sportives vont continuer avec d'autres surprises gars dia Gen jeff.